mais mais dialogue bi c'était pas l'occasion ngeen waxtaane yow nga jàpp nga jàpp mille personnes ci benn parti nga woote dialogue ne ku gedd sa yaay aye période bi ñu war a def dialogue bi nga programmer euh, euh, procès wu euh, ki nga xam ne mooy chef de l'opposition bi nga xam ne nee nañ dafa war a dem ci dialogue bi président Sonko ne leen man du ma négocier paak ci put te ba mu ba fa fa mu tëdd ca lalam bële loolu la wéy di doxal du négocier. mais regretté wu leen avec avec le temps on ne regrette rien xam nga kañ lañ doon regretté kañ lañ doon regretté ah mooy ñun waaye yaa xayti ñun defuñu lu tax ñuy jaloge ñun tooñuñu defuñu dara li ñuy laaj mooy dañoo bëgg a dem ci ay élection wóolu nañu suñu bopp ngemm nañ suñu mbër nañu organiser élection yu leer président Ousmane Macky Sall dem ci demin wu rafet askan wi tànnal seen bopp loolu moo gën